maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di remercier staff euh, bu grande coalition Gëm sa bopp le comité d'orientation bi nga xam ne euh, ñëw nañu ñoom it pour teewee euh, ce cette conférence de presse je crois que soxlawul ñuy wax lan moo waral jotaay bi vous le savez tous, depuis vendredi, le monde nous regarde, le Sénégal. lu ko waral nous avons un président en l'occurrence Macky qui aujourd'hui a permis à d'autres pays qui jadis étaient très loin sur le tableau des pays avec une avancée démocratique intéressante ou importante, Macky Sall a permis à ces pays de donner des leçons de démocratie au Sénégal. Parce que l'ICAO, vendredi, au Sénégal, c'est une honte pour bépp Sénégalais boo xam ne nitu jàmm c'est une honte pour bépp sénégalais boo xam ne dal nga bëgg ci réew mi nous avons en face de nous un tyran un despote boo xam ne dafa sol mbubbum justice parce que lépp lu muy def dana fexe ba teg ko ci justice ba nit ñi di lam-lamee pourquoi loolu am mais li ko waral xam ngeen ko yéen ñëpp mooy Macky Sall dafay instrumentaliser justice bu Sénégal li xew vendredi moo tax ñetti nit ñetti sénégalais ñetti brave sénégalais ñetti espoir u Sénégal ñetti avenir ci Sénégal ñàkk seen bakkan ñetti nit yoo xam ne seen njaboot amoon nañu ci ñoom yaakaar ñetti nit ñoo xam ne Sénégal wékkoon na ci ñoom espoir ñu loolu tey tabbi na benn nit moo ko waral muy président makisal li ko waral mooy dafa am ay liberté yoo xam ne constitution bu Sénégal daf ko garantir bokk na ci ñaxtu bokk na ci def marche et loolu ni ko ñëpp xame régime déclaratif la mais dem nañu ba tey li waroon nekk exception moom la Macky sàll jël def ko yet di ko dóori nit ñi mooy lan mooy interdiction ànd ci avec une administration boo xam ne tey jii ñëpp d'accord nañu ne lu tas Sénégal lu yàq Sénégal administration boobu nga xam ne dañu tëdd politiciens yi di jaar ci seen kaw administration boobu nga xam ne amuñu fulla ngir jën en charge ëllëgu réew mi administration boobu nga xam ne dañu waroon a tëddee njaaxaanaay ba ku wàcc yoon ñu teg la yoon malheureusement cette administration territoriale est partisane et ñoom lépp loo xam ne seen ministre sant na leen ko noonu lañu koy defe li ñuy wax ku la abal gët nga xool fi ko neex malheureusement ñoom aussi am nañu ci seen part de responsabilité ñetti nit ñi ñàkk seen bakkan ñu ngi leen di jaal seeni njaboot metti na waaye nañu xam ne deret jooju tuuru Sénégal la ñu ko tuural waaye waaye ngalawaay ñun ñi fi des nañu am jom am fulla ak fayda ba ñooñu seen deret jooju tuuru mu bañ a doon comme yeneeni deret yi fi tuuru woon parce que Macky Sall xel mu gàtt la yor bu ma gisee muy interdire ne manifestation du fi am moom dafa fàtte ne laata muy falu daanaka fukk ak juróom lu topp ci ay bakkan rot na bi ci gënoon a fés di Mamadou Diop mi nga xam ne foofu ca place de l'obélisque la woon kon Macky Sall fayul waa Sénégal xorom bi Macky Sall def na loo xam ne kenn ku nekk ci ñun mu ngi koy bàyyi xel waaye na xam ne yàgg-yàgg fii mu toog dina fi jóge yàgg-yàgg fii mu goor dafa ne daf koo donn dana nu ko fi jële ci anam gu mu mën a doon parce que nag démocratie dafa am lu mu laaj démocratie dafa laaj yaatu démocratie dafa laaj njaboote parce que muy ñun ñi nekk ci opposition bi comme ñoom ñi nekk ci pouvoir bi moom Macky moo njaboote ñépp kon tey su ma gisee am ñuy rafetlu ñetti doomu aadama seen bakkan des ci ngay dégg ñenn ñi di verser dans le triomphalisme di wax naan la situation est gérée gérée à quel prix ñetti bakkan ñoo ci rot bu doon benn sax ëpp na mais ñett ñoo ci rot ci loo xam ne moom président Macky Sall mënoon na ko moytu parce que li fi amoon ci fan yële ñu génn mu di ñaxtu rassemblement mobilisation boo xam ne coalition Yewwi Askan Wi def nañu ko ñu autoriser ko bal tàkkul géej gi débordewul sagar xeeñu moyens yi ñu déployé ci dëkk bi pour def répression aljuma moyens yooyu ku nekk ci yéen xam na ne bu ñu ko defoon place de l'Obélisque dara du fa am parce que danañu ko encadré dans les règles de l'art parce que nag bu ñu waxantee dëgg am nañu ay forces de défense et de sécurité yoo xam ne entraîné nañu leen tàggat nañu leen ni ñu leen war a tàggate mais c'est foo dem fekk fa Maram ak Birane et ñooñu ñoo indi tey jéye ji nga xam ne ñetti nit ñàkk nañu seen bakkan ci li am vendredi ci Ndakaaru ak ci yeneeni gox ci senegal may bëgg leeral rek ne démocratie Sénégal dañu ko xeex ci ay at yu bari ki ci njëkk di ni ngeen ko xamee président Abdoulaye Wade mu am xeex bu am solo bu mu ci def Cheikh Anta am xeex bu am solo bu mu ci def Majmout Diop am xeex bu am solo boo xam ne def na ko ci lu ko jiitu Serigne Cheikh Al Maktoum am xeex bu am solo bu mu ci def naka noonu Serigne Cheikh Gaynde Fatma ñooñu dañ ñu wan yoon yoon boobu ñu ñu wan xeex boobu ñu def ñun ñi fi des muy cette nouvelle génération waruñu def lu yées ñooñu xeex bi ñu xeexal Sénégal parce que nag li xew ci week bi gàcce la pour Sénégal ak képp ku mu mën a doon ak foo mën a féete gàcce la gàcce la pourquoi parce que dañu mus a nekk étoile ci wàllu démocratie kon bu ñu demee tey ba ñu ñuy lim ci ñi nga xam ne dañuy nërmeel démocratie war nañu xoolaat suñu bopp mais loolu kenn waralu ko ku mooy ki nga xam ne bëgg naa bëre te nanguwul sëgg bëgg naa bëre te xool ki ko neex bëgg naa bëre te moom mooy tànn ñi muy bëreel bëgg naa bëre te moom mooy xool naka lay gañe boo koy daan moom mooy xool ci ban wet ak ci kan suuf nga koy daaneel loolu nag moo ko nara a të li wóor mooy fa ñu nekkoon démb ñun ñii fa lañu ñu nekkaat damay fàttali rekk ñi nekk ci opposition bi ñëpp wax jamaleen waxoon ki ñu jàkkaar lool yéeneem mooy kenn ku nekk dana la boq yóbbu la ci roq jël paaka rendi la ñëw indiwaat keneen kon ñun ñii nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi te kenn ku nekk am lu la suñu borom may jot na ñu am benn plateforme boo xam ne des na ko àndandoo di xeex ngir lu sàmm démocratie Sénégal ngir lu dëgëral démocratie Sénégal donte ku ci nekk am nga sa gis-gis ku ci nekk am nga sa xalaat am na sax ñu jàpp ne ñoom dañoo wéet ci seen xeex ma ne juum nañu parce que ñun gëm sa bopp la ñu njëkk mboq mboq ñu ci parrainage dóor nu yet wi mais bañ ñu ko dóoree ñu bari ci ñoom dañoo toog ci seen roqate naan sama yoon nekku ci mais xamuñu ne Macky sàll comme dafa bëri caay-caay ak njublan ku ci nekk ak yat wa mu lay dóore ñii yatu parrainage la ñii yatu parité la ñii yatu euh, Euh, nu ngi koy xeeti euh, liste la ñii yatu euh, doublon la et cetera et cetera faculté boobu ñu may Macky Sall ba muy mën di tànn ñan ñoo ko neex ngir dem ci élection tant que opposition bi jóguñu xeex benn baat xeexandoo ci benn doole ngir Macky Sall xam ne du moom moo war di organiser ay élections fileeg yegguñu ci loolu lu ko neex lay def fileeg yegguñu ci loolu li mu bëgg mooy seet ki ko neex dem ak moom élection waxoon nañu ko dañu koy waxaat élection yi ñu jëm du ay élection mais sélection législative la sélection boo xam ne moom moo ko def te li mu ci jublu encore une fois mooy am majorité assemblée nationale ngir bu boobaa mu mën a def la ko neex defe ko na mu ko bëgg a defe ak ci anam ya mu ko mën a defe te loolu yëpp nag nekk luy salfaañe démocratie bu Sénégal c'est dommage parce que li ñu gis vendredi mooy confiscation de la liberté des Sénégalais ay nit nga fekk leen ci seen kër bundu xatal leen ne leen du ngeen génn du ngeen dem du ngeen dikk du ngeen sawi du ngeen génn ci kër gi jël ay alkaati teg ci seen buntu kër te amul benn décision de justice bu mën a cautionner loolu waaw ku nekk na toog sa roq di ree la ñu daloon ci parrainage ci gëm sa bopp dana raamaat ba dalaat ci keneen parce que ministre de l'intérieur dana jëlaat ay policiers armé leen ne leen dem leen toog buntu kër diw bu mu génn bu mu dem bu mu def dara alors ça c'est des atteintes extrêmement graves à la liberté et loolu bu ñu ko xeexul li xew kër Ousmane Sonko li xew kër Barthélémy Diaz loolu waratul amati ci Sénégal parce que loolu jamonoy Abdou Diouf sax sañu ko woon a def Ablaye Wade jamonoy Ablaye Wade Ablaye Wade defu ko Idrissa Seck defu ko ko moom Macky Sall parce que buñ ko ko defoon xëy na amaana du dem ci élection kon nag li ci des mooy kenn ku nekk ci fulla ak fayda man waxuma ñu reyante mais mën nañu kenn ku nekk ci fànn woo mëne continuer di xeex la nga war a xeex parce que nag bu fekkee ne da nga jàkkaarloog koo xam ne bañul gàcce parce que ki ñu jàkkaarlool bañul gàcce ku bañul gàcce dangay ngay xam nuy jëflanteeg moom parce que nag li wóor mooy Sénégal gi ñun du ñu nangu kenn yàq kon moom président Macky Sall bu nit ñi demandé marche autorisation dong moo ca war bu nit ñi demandé sitting autorisation dong moo ca war parce que c'est un droit qui est garanti par la constitution sénégalaise kon li am vendredi ba ay nit dee benn responsable dong moo am ci réew mi kenn dong la mbir yi nekk ci ndoddam du kenn ku mooy président Macky Sall parce que ñi ci jël ay décision ñi nga xam ne ñoom ñoo interdire marché yooyu moom président Macky Sall bu leen waxoon ñu def le contraire ngeen gis ne danañu ko def kon bu boobaa lii am ci réew mi jafe-jafe yi am ci réew mi tiit gi am ci réew mi fitna gi am ci réew mi danañu ko éviter et ko nag moo ko war moom président Macky Sall parce que tey nit ñi sonn nañu dégg naa suma jeune frère Pape Djibril Fall mu ne politiciens yi dañu bëgg jël nit ñi sonal réew mi mais c'est la réalité c'est une triste réalité j'ai vu ñu ngi koy attaquer comme ni ñu doon def rek parce que buggaan àndul ak ñun xalaat nañ ko attaquer mais dama koy wax ne ko na carapace gën a dëgër àdduna gëm-gëm dong moo fi nekk man li ma gëm mooy moom Macky Sall ak ñenn ci ñu bari ñi koy xeex ñoom ñëpp ñoo yem parce que ñoom ñëpp ñoo nërmeel Sénégal nit mënul def 40 ans ci yàq Sénégal nit def 12 ans ci yàq Sénégal ba noppi nga ñëw taxawaat jàkkaarloog askan wi naan leen man maay solution bi au contraire c'est vous les problèmes du Sénégal c'est ça la réalité loolu nag. du ñu nangu ñun ñu ñuy nax mën nañoo nax ay pa ak ay maire mais ñun génération bii nga xam ne ñun politique defu dara ci ñun yaakaaruñu dara ci politique lépp lu ñu am suñu ñàkk bii moo ñu ko may yaakaaruñu ne politique mun naa def dara ci ñun lenn dong moo ñu intéressé nu ñu mën a def pour xeex pour Sénégal nu ñu mën a def ba suñu rakk yi nu ñu mën a def ba suñu jarbaat yi suñu doom yi seen ëllëg gën yéen ñii ku ci nekk ci ñu toog fii dangeen di jël seen alal di jël seen ñaq seen doole di participer di ànd ak ñun ci lii nga xam ne moom lañu ñu gëm mu di gëm sa bopp waaw léegi est-ce que war nañu toog di seetaan ñeneen ñëw di ñu nax est-ce que war nañu toog di seetaan ay politiciens war a jël otage Sénégal nous disons non nous disons non cependant du tee nag ñu taxaw di xeex lépp loo xam ne luy yàq démocratie Sénégal il faut qu'on soit très clair bu leen neexee encore ñu taxawaat fële di wax lañu daan wax mais man li ma wax c'est très clair Macky sàll mënuñu ko seetaan muy def lu ko neex ci réew mi c'est pas possible duñu ko seetaan muy def lu ko neex ci réew mi c'est pas possible loolu nag pour ñu yegg ci dafa am synergie bu mu laaj synergie boobu mooy ñi nekk ci opposition bi ku ci nekk xam lan mooy sa doole ñii am nañu 30 pour cent ñii am nañu 10 pour cent ñii am nañu deux pour cent ñii am nañu 1 pour cent mais li am solo xam nga mooy lan mooy li wóor mooy Macky Sall pour cent la toll ci dooleem ci réew mi fi mu nekk nii. kon ça veut que 60 pour cent yi mu ngi ci ñi des waaw léegi ñi des faw ñu dawal intelligence pour mun a boole seeni doole pour ñu xam ne liy defar Sénégal ñoom dañu ci am part de responsabilité part de responsabilité boobu mu ngi commencé ci xeexandoo. wareef ak yelleef regardez ce qui s'est passé avec Déthié Fall avec Mame Diarra Fam des députés de la République ñoo xam ne dañu am immunité parlementaire seen immunité parlementaire ñu bafoué ko tey ji yóbbu leen tribunal war leen a déglu te ne xam na ne ci ñun ñi dañ leen di dóor mandat de dépp ni ñu ko defee ci information yi ma jot ci Ahmed Aïdara c'est déjà fait c'est dommage c'est un recul c'est dommage Macky Sall am na way moom Macky Sall moo njëkk tëj ñetti député ci biir kaso bi ensemble parce que loolu record Guinness la et je suis certain que dinañ ko inscrire ci record yi en matière en tout cas ci agenda politique gu àdduna moom Macky moo njëkk tëjandoo ñetti député ci kaso en même temps muy Cheikh Bara Dolly ku ne xam na ne la mu wax dafa juum mais njaboot boo njabootee da ngay jëllale boo njabootee da ngay jéggale boo njabootee da ngay fénatal mais ku ne xam na ne Cheikh Abdou Bara li mu wax xër moo ko ca yóbbu ak wax joo xam ne li ñuy wax làmmiñ bal la wax ja dem na mais moom mi njaboote Sénégal waroon na ko mën a jéggal et day wane grandeur am mais malheureusement plus on avance avec Macky plus mu ñuy démontrer ban façon yi nit la plus mu ñuy wan ne moom day defante plus mu ñuy wan ne moom dafa am péete te péeteem googu faw mu koy assumer di ko assurer c'est dommage Mame Diarra Fam Déthié Fall lan lañ def kii dafa dem di seeti doomam kii taxaw ci buntu permanence am ñu fekk leen fa dajale leen nguufaan leen yóbbu leen démb dem na section de recherche bu Kolobat di seeti Déthié Fall ak Mame Diarra Fam mais dañu bañ ne ñu mënu leen ko gis ñu xam ne aussi comme ñoom ñoo yore la violence légale ñu daldi leen bàyyee seen caserne génnit ñun dem suñu yoon lu jëm ci seen incarcération c'est un recul démocratique Ahmed dara idem le maire de Diamaguène Sicap Mbao idem Guy Marius Sagna lan la def dem ngir xool ay naatangom ndax ñu ngi ci jàmm ñu ne ko yow justement yow lañ doon wut jàpp ne karaj tëj ci biir ma ne yéen ñii nekkatu leen en sécurité parce que bu ëllëgee danañu ñëw ci yéen ne leen li ngeen bind waru leen ko bind wala waru leen koo wax et bu boobaa dinañ leen teg ci mbaam mi ni ñu ko defee ci ñeneen kon c'est le moment de comprendre que war na jot na ñu boole doole yi xeex ak ki nga xam ne moom moo di le président Macky pour ñu respecter Sénégal pour ñu respecter droit pour ñu respecter démocratie pour ñu respecter état de droit parce que nag loolu dafa nekk loo xam ne kenn ku nekk ci ñun war na xeex ngir loolu pour suñuy njaboot pour suñuy doom ëllëg parce que ñeneen dañu xeexoon ba ñu yegsi fii nga xam ne fii la ñu yegsi kon may wax rek ne ñun ci gëm sa bopp yéene bi ñu am mooy fexe ba opposition bi nekk ci benn plateforme plateforme boo xam ne plateforme xeex la plateforme défendre démocratie Sénégal donte nag ku ci nekk mën nga am sa ambition mun nga am sa yéene waaye li war mooy kii ñu jàkkaarloo am na pas-pas ci li mu jëm mooy éliminer ñëpp ñi nekk ci opposition bi alors comme moom jaral na ko loolu waaye ngalla ñu nit nañu ko jaral ba ñu organiser wu ba ñu mën a taxaw doon benn say xeex ngir jàkkaarloo ak président Macky buy ko defee nag bu ñu yeggee ci yeneeni échéance ku ci nekk ak na nga ca war a taxawee ku ci nekk ak ni nga ci war a dem mais ku ne xam na ne élection yii ñu jëm mu di ay élection législative te mu soppi ko moom ay sélection législative ku ne xam na ne gàcce la pour Sénégal parce que élection législative boo xam ne une partie signifiante une bonne partie une partie bi ëpp ci opposition bi ci seenu taxawaay ci seenu engagement ci seenu détermination naruñu ca bokk loolu du ab élection et loolu nag moom la Macky sàll bëgg et loolu incha allahu rabbi yaakaar naa ne yoon bi nga xam ne ku nekk jël na ko na ci kenn ku nekk jàpp parce que li war mooy mbooloo mooy doole et mbooloo moom moom la sénégalais yi di xaar ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci landerno bi et li nga xam ne aussi ma ci lancé waat beneen message à l'endroit du président de la république pour yeneen yi ñëw suba ginnaaw suba gannaawaat suba nit ñi dañu am droit organiser ay manifestations dañu jëm ci fête bu am solo d'abord mu di centenaire Seydi Hadj Malick mais dañuy buñ ci jógee dañuy dem ci tabaski tabaski ku nekk xam na ne ci la góorgóorlu yi di tong-tongi di tëñ-tëñi ngir mun a am lu ñu dundale seen doom ngir mun a am lu ñu gañe ci marché yi ngir mën a am lu ñu jënde xaru tabaski ngir mën a am lu ñu jënde pomme de terre ak soble waaye waaye président Macky sàll comme dimbale woo réew mi bu leen ko xañ te ni nga leen koy xañee mooy installer fitna ci Sénégal ni nga leen koy xañee mooy fexe ba nit ñi duñu nekk ci jàmm parce que bu fekkee ne nit ñi dañu am droit ci manifester nit ñi dañu am droit ci rassemblement nga bëgg leen ko xañ ko bëgg xañ droit wam mu jàkkaarloo ak yow kon nañu wax ne fii benn responsable dong moo fi nekk lii fi xew ba ay nit faatu ci benn nit dong moom moo ko waral benn nit dong moo nu dugal ci situation ci gutte gi nga xam ne moom la Sénégal nekk du kenn ku mooy le président Macky parce que moom moo décidé fouler du pied li nga xam ne moom mooy les libertés individuelles li nga xam ne moom mooy le droit te suñu constitution garantir ko loolu nag encore une fois ñun waa gëm sa ñu ngi féete avec la population ñu ngi féete ak askan wi te askan wi li mu wax mooy nañu respecter état de droit nañu jox kenn ku nekk àqam waaye booloo ngir mun a jàkkaarloo ak kii fi nekk mu di la président Macky Sall maa ngi leen di déglu ci seen i question